ci xeetu yonent bi ndax bu yàlla dolli njëriñ may leenu nopp yi sëñ sëñ tay baa ngi yeesalati ak cant yàlla boromam ak di xam ne njëriñ noo ngi taxawloo ti sax koo xam ne kem leen nu gis mu xew ci réew mi tamuy lool lenn doon ci njëriñ yonent bi daa wax ni foo gis menn mbir mu warul faj ko ci sab loxo ba dañ mooy la gën di njëriñ boo amul kattan ba man ko faj nga dal di ko wax bu wax fajul dara sañ nga muñ te def sa njëriñ lii moo waral man mi néew kattan te gis lu warul may jóg di wax li ma xam yaakaar ni am na njëriñ booy yàlla daf noo bëggal ak texe ndax Muhammad ba jox nu alxuraan nañ koy jàng moo di njëriñ mu teg ci yeneen yi ak saxabaan yi ñëpp di wax ngir bëgg noonu ña di jëm ci texe moo di njëriñ mu teg ci ay xutbu ak ay xasu ñëpp di wax ak awliya yi ak la ah, morsal yi ñëpp di njëriñ defal nu wàllu ñii ñëw pàcc feeñe ci nun ku mel ni Cheikh Bamba ñii ñëw lu mun wax di njëriñ jëb na fi wax na fi di ngi téere bàyyi fi nun ngir di nu laa bire teenoo jël sa sàkku njëriñ seytaan yi jóg na te daa am doole buñ taxawul ci xel yi yàqal na loolu li leen du doon njëriñ la toona wërsëg yi war nañ ne di ñëpp a ngi daw di jublu adduna fàtte yàlla lii du njëriñ xaalim du sat kooti jul aalim lu di dagaan ab attekat bu dul atte alxuraan du njëriñ julit bu fiy julli booy sëlmal di sant sa doom jàngil ci ñuy weddi yonoon bi te lii du njëriñ te koy xumóot yaa ngi waat ak yàlla wax ku lu wér naa bàyyi naa ku la bàyyi gëm la wut sa njëriñ ku bàyyi yàlla nag noo koy foogee gaa ñi gëmul yonent bi nuy topp mboolem lu mu wax di way julli ñoo bëgg a war seen bopp mbaa ñu gërëm doom la ko bàyyi ba di xiir lay foog ni moo di saytaane moo jàpp ak siiram tëral ci alal ku dee ngi kër kër yi fàtte yàlla lii di njëriñ ñii yaa ngi njub langim ñii naafiq ñii politique ñii ngi jàng lu wuteeg alxuraan du njëriñ ku dee ngi kër kër yi ngir dunyaa bi kenn wutatul loo def ci bàmmeel ngir bu yàlla lii du njëriñ ak sàkku moom war na mboolem nit ku nekk ci suuf waaye la ngay sàkku na nga koy teg ci sàkku sàkkul ba mel ni ku dul faatooti ngir sa njëriñ jaabul ba foog ni da ngay dem tey lii lay sa njëriñ jàngit lu war la te xel looy jàng boole ca xam li war ci yow sa diggal bur yàlla am na njëriñ ni ab julit laa sa doom ji doo ko jaareel si ci alxuraan ba mu daj teg du doon sa njëriñ lu dul bu nee juleet ngay wut karre booleeg film dugal ci daara yi wuteeg alxuraan du njëriñ daara yi fi xamle diineeg yàlla gent nañu daara yi fi joxe comme ne di jopp nañu ci xam ba xam jeex lu ñuy xam alxuraan a jigéen te am ba am jeex am diine ci gën di njëriñ nga gis ku dem bay mu kàllaf nekk doomi julli doo xam lu dig julli war seefam te lii du njëriñ doo xam sa baax la te doo xam xëj la doo xam itam nooy waajale julli jóg leen seet ko lii du njëriñ doo xam nu ñuy jàppee doo xam nooy sangoo farata ngir topp adduna warkat bii te ñàkk njëriñ nga gis ku dem ba dañu réer bàyyi lépp lu wax dëgg mal nu muy am koom foog ni moo di njëriñ du farataal du farataal waxtu dootul jàpp dootul tasab ci yépp dem ngir alal xam ngeen ni luy duy njëriñ kuy sàkku jib sëy du laaj lislaam du laaju melo sakkatuma ak juddu xam ne lii du jëm fu jëriñ fu muy liggéey lu mu am ba am na kër gu rafet yal na di majjoor dañuy wax kooku am na njëriñ kuy góor di sàkku di koo am kuy kuy góor di sàkku di koo yor moom itam di ta seet kuñ ko yaree ku ko jur nooy def ba am ca njëriñ koy jur yooyu duñu seet seen mbokk mbaatab julit lu dul borom alal lii nag mënta jëm fu jëriñ na seet ñu baax ñu fi nekkoon aw ci yoon wu rafet tegoon ci seeni njaboot loolaay la gën di njëriñ lii lépp nag liggéeyu saytaane mooy ki ko def ngir bëgg noo nax ëllëg nuy rëcc lii du njëriñ nan jéem a jóg fexe fexe nu ko xeexe buñ ko deful fexe mi yàqal nu loolu yi nag du doon njëriñ ku ne la tëdd ba xaaju guddi seet ci xelam te xew ci moom ak njabootam xam lu leen di jëriñ alal ji kum tax nga war bur yàlla li ñu digee woon da ko fi bàyyi ëllëg ngay rëcc lii du njëriñ alal mu bari bañ koy yéem du yokk ci saw fan benn bis boo ko seetloo jaamu gën di jëriñ amaana waaju amoon ay jal ba naa du mbiram jal yooyu xëy dem mu béeteeg bor ya lii du njëriñ yàllante nay ak mbaa ay julli moo koy tegoo mbugal ya topp ko nan daw loolu day du njëriñ nga ko yàlla debal wërsëg te seddu ca bis naan naa ni adduna xëy dem ba ko lii du njëriñ ñu doon wërsëg yëpp yéene ko jo te du man dara nan daw loolu day du njëriñ woykat bu mag bu ñu daan wax maam Moussa dafa way lu mat di fàttali way yooyu lu am la njëriñ loo xajj xajj malaakam leen xëy di sa gan te loo ko berndee lu dul sa gro du génn sa bu dig ba jeexee baru goy ji yàlla boroom mooy gën a métti juróom-ñaar fukki rabb yu sar te buñ la jonk jonksee ba yóbbu suuli ba ñëw ñu ngay xëccoo alal jaag sa doom yaag ña nga ba am am bi kenn lu mu neew néew am na bés ba mu doy bés bu ñu koy settee kenn aw fépp tuuta njëriñ nañ jéem a góorgóorlu def ci bis dana ñëw bis booba nag lu mu tuut am jàmm gën di way woykat bu mag bu jëkkoon baakol dafay defi woy ñu mag di fàttali woy yooyu lu am na njëriñ muy suñu sëñ bu ñu daan wax Babacar Jaxate te lépp lu mu woy ci bi mu doon i njëriñ te la mu doon wax yemoom nun ñii atum setetin ngir ñi doon nelaw fàtte yàlla sakku njëriñ yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar sa xamoo naaree ci àjjana fooy yewoon na ngay nelawee yow mii nelaw te xamoo bis penc boo fay la yoon da ngay yeeyam dañ la fay yeñ moo na ngay nelawee ka doon xalaat loola day moom sàkkuwul woon alal ba teemu jaamu boroomam xam ni moo di njëriñ nasraan ñoo ànd ak saytaane wan nu alal ak mbigi adduna ban daw jëf ci def ko njëriñ ay soto ay woto ay teg banque ay turi tur naa siiw ci adduna lii lay wut lii du njëriñ ay këri kër ay wotoy ay lépp adduna tax yii ay du jur jàmm nan jóg seet ko lii du njëriñ te li mi ay doon ay jàkka mbaa ay juma mbaa li ay rakk mbaa ay yiw du doon njëriñ alal bu fekkoon ni moo gën Moustapha gën sallallahu alayhi wa sallam alal bu fekkoon ni moo gën Moustapha mi nu gën bàyyi fi lim bu waral nu xam ne moo di njëriñ ilmu nu jëm bi yi jàng it bu gënoon yonent bi topp ko raf leen diine kon du njëriñ la ban ba doon bañ ci nasaraan lépp ak si na tey xol yépp jublu na leen tey deeni ñoo na naxal yi dellu ci xaaroona ma yàlla mayal alal ju wet bari ja ba mu koy weddi bépp njëriñ sada ba tarbiyoon Moussa ba laq ngërëm alal alal comme xëy dem naa lii du njëriñ seet leen ci wàllu yii nuy topp kenn bawu fi alal lu dul juma mbaa def jàkka moo di njëriñ te bañu fiy def juma ngir yàlla kenn dëkkut lu dul baraak mbaa ci am ñax loola moo di njëriñ ku mel ni Seexul Xadiim nii yàlla may li mu may taxul mu bàyyi fi luñ gis muy lu ñàkk njëriñ gis ngeen fi lim bay muy loolu fii ba adduna yam ku nekk yaa ngi ci sàkkoo xam li lee di njëriñ bu sàkkoon xam ci luy naaw mbaa alal mbaa jàngu adduna wii waa nit ñi xam si njëriñ subhaana yonen ba gën yonen yi dem ñu gis ak jawrinam janu daa tegtal lu doon a njëriñ ñoo ñaa defoon dëgg ñoo wax dëgg ñoo mat a roy jëf nañu wax nañu teenoo soppi lii muy njëriñ te yàlla moom dafa mat booy soppi lam koy defal mu soppi yiw la daan jox loola nag ba njëriñ te boo nee safaan tuub soppi soppi bu wér mu daal di lay soppi baax loola moo di njëriñ nan jéem a góorgóorlu fas ah, soppee baax te mooy li gënal yonent yàlla ak yonent bi ak Cheikh Bamba moo di njëriñ man mi di yeddaate nag foog naa ne maay ki ci raw ci xeeti tàggante bay tuub fas ci sàkku njëriñ man mi ñu tarbiye woon ba wàcc ba jëba jóg seytaane ngir bëgg maa yàq lu doon njëriñ buur yàlla ñor di ma ci baaxam ci barkeb Sëriñ Tuubaa ma nekk bi Tuubaa tey di sàkku njëriñ kuy sant maa war a am ak sant man mi mu may taw feex yu ànd a ngëneel te tey ngëneel ma njëriñ man tey ba nag maa ngi santaat boole koog di biréen bu tuub ji ma tuub di ko santaat ñëpp sàkku njëriñ yàlla na buur yàlla jéggal jéggalaale ku tuub ngir yàlla xeer na ci def ayib te sakk njëriñ amin bi jaayi rasulullahi sayyidina muhammadin ibn abdullahi may na njëriñ xam ne waar nañ ñu xam ci ñoom njëriñ bu sakkoon xam ci luy naaw mbaa alal ji ñu yéem mbaa jàngu adduna wii waar nañ ñu xam ci njëriñ subhaana yonen ba gën yonen yi def nañu gis ak jaw yi nam janu daal tegtal lu doon njëriñ ñoo ñaa defoon dëgg ñoo wax dëgg ñoo mat a roy jëf nañu wax nañu teenoo sopp diinu jëriñ te yàlla moom dafa mat booy soppi la koy jëfal mu soppi yiw yem la daan jox loola nag doy njëriñ te boo newee ci safaan suuf soppi soppi gu mu daal di lay soppi ci baax loola moo di njëriñ nan jéem a góorgóorlu sakkoo baax te mooy li gënal yàlla ak yonent bi ak buur yàlla moo di njëriñ euh, nan jéem a góorgóorlu sakkoo baax te mooy li gënal yàlla ak yonent bi ak Cheikh Bamba moo di njëriñ man mii di yeddaate nag foog naa ni maay ki ci raw ci xeeti càggante bay tuub fas di sàkku njëriñ man mii ñu tarbiye woon baa wàcc bàjj ba jóg saytaane ngir bëgg maa yàqal lu doon njëriñ buur yàlla di ma ci baaxam ci barkeb sëriñ Touba ma nekk fii Touba tey di sakku njëriñ kuy sant maa war a ma am ak sant may man mi mu may taw feex yu ànd ak ngëneel tey ji defal ma njëriñ man tay ba nag maa ngi santaat boole koog ji biral tuub gii ma tuub ci ko santaat ñëpp sakku njëriñ yàlla na nu buur yàlla jéggal jéggalaale ku tuub ngir yàlla kenn ci def ay yi te sakku njëriñ amin bi jaay rasulillahi sayyidina muhammadun ibnu abdullahi may na njëriñ waaw loolu la ñu wax ci saraa ci hadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tey noo ngi teg téere bopp noo ko def rek ci yéetu yàlla xam ne lu dul yàlla rek amul lu nuy toppee ak ku nuy gëmit yàlla tax Sëriñ Tuubaa miinu sukkandikoo itam dañuy ñëw leen dem ma yóbbu leen ci yàlla al muridullah te nun ci yàlla rek lan soppa dem tey kuy dem jàll ci yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam ngay jaar lii nag na ko def ci wetug yàlla wax ne bismillah ñu jóg tey jéem a xam la li ne muy yàlla ak yonenam baa ngi ñim ci topp ñu ne noo jéem a waaru ci maggu yàlla waa ci ñi gëm te gëm ko dunyaa wa oxra fépp mooy xala ne nan dellu tuubaat xalaat buur yàlla buur bi fi ne mooy démb mooy tey te teccarloo bu mooy xala ne mooy buur bi dul toxu nguuram kenn xamul lu ko sos te amutum yamu nan gëm boobu buur fi ne borom bi moom rekk mooy buur tey ku ñàkk borom wéetam nga jiitu na ay bàyyi jiriñ fa mu ne moo ñàkku askan ba jurul kenn kenn juru ko mooy sangu luy jural luy jur boobu bu rafet ni buurum ñi tëg jinneen buurum luy sosoog lu ñu sof buurum malayka yi lu jox ndigal di fi nen kii buuru kursi yu tey buurub aras di borom jant bi ak weer yi nan gëm boobu bu rafet ni mooy buur bi ñuy wooyee sol faatali jëf lu ko sopp lottu ci mu ko sopp kon kooku rekk fi ne wuyoo buur de euh, benn dees na la def ci jéng bis ba ñu ni dig benn buur a fa ne kuy jaamu yàlla wuyoo buur benn dees na la def ci jéng bis ba ñu ni dig benn buur a fa ne bisub keroog ña fa doon soppee ma doon ña ko gëm sàmmontewoon ak bisub janlooru gëm la fa ne gëm alxuraanam bi gëm yoneen yi wàcc ci nun te def ndigal yi ñu leen yónnee te mooy xale ne ku seet ka saf jaam yi saf biir yépp kenn xamul fa mu sasoog la ko saf jëm leen ko mooy tusi ne ku seet ka saf ca kii màggal ko sopp ko bu bii buur rek rek fi ne ka jàpp leer def ko muy aw lu mu def ko deret sàkkal ko ay cër ba mu nit boo buur a fi ne def say sidit def ci ay yax dellu def ca nduyóor def ñaq solvoo ki def lii kooku rek fi ne defaat ca xel muy xalaat def xol mu nangu di bañ def bët la muy gise déggu nopp mooy ka fa ko ay weer ca biirum ndey ja boole di yor kem nooye ak dund ak màggal ga lépp dina wàccale àdduna yor sa càmm sàmm sa ndey di wër fegal bàyyi la muy teetee njaboot ga fa ne notal nu lépp lu dul nit lépp nit di yilif ay doomu aadama seenoo jaamu buur bi fi ne booy juddu ñuy rendi ay ruu ngir teral ca saroo ngir fonk nit nit ko am jom xam mooy ki fi ne notal nu bàyyi ma yéeg garab yi noo ko yilif yilif malaayika ngir yonent bi muy xalone sallallahu alayhi wa sallam lalal nu suuf si mu di der def ci bépp njëriñ muy ball nuy tedd li tax jànn gën yi fi ne defal nu géej gi mu di xiiwal nu moom li ci ne mayaat nu ay xel yi ñuy takkoo njëriñ yi ci ne notal nu daa bay am ay doole boole ñu dox nun doomu aadama te noo jaamu bëgg fi daa bay am ay doole ay doole bokk nu boole nu jox nun doomu aadama te noo jaamu bëgg fi ne waxaat nu moom yàlla ak soppam ci li mu day ci alxuraan mi di njiitul bépp téere bu ne jël ruu gi gën ruu yi mu yonan bi def ko ci ñun ba tax nu gën lépp kon teenoo dëggal li fi ne defal nu lii lépp di nu texe sant nu ngëm ni mooy bégal ëllëg moo fay bugle mooy kafane defal nu ak dund jox nu wér bay cër yi di dox sofal nu wërsëg defal nu xel ki lay ki fi ne mu tànn laat na ci biir xeet yépp nuyu jigéen ngir sayyidina Muhammad jiitoon gi mooy xalane xaatimu nabi imaamul mursalina bi gën wa sallallahu alayhi ay ngëneel dama in wàccee nu téere bi gën téere yi lu mu mas a wax lam wax ci téere bi teen koo topp mooy xalane yoneen bu laa biir bi am yërmaane gën nu gën nu yërëm nun xeetu Muhammadu teen koo topp mooy xale ne riñaan na ngir nun di fekk yàlla ngir lu nu may te fekk fee ëllëg teen koo topp mooy xale ne ba mu demee ñaan borom bi yàlla wàcce julli ñaan nu fii tuub ñu ni jéggal te lépp ni ñaan yàlla yi wunu def mu mu ko doon ci yi tooñ yi mu def benn booy tuub njéggalam jël ne yii lépp nag Moustapha baa xam gi moo ko waral wa sallallahu alayhi li mu sant si ni kon ku ci sàggan ba saytaane ci yi mu yor fexeel la ay coono nan daw loolu ba mu bañ na jéem a góorgóorlu jaamu yàlla jaamu bu wér sàmmoonte ak sunna gëm yàlla ak ndigal yi fi nen te gëm ni yonent yi moo leen yónni ñoo ko fi neel ci ñoom la téere yi wàccoon li ñu sant fi ne muy julli waxtu yi sellal ngëm ji fonk sunna tey moytu bàkkaar yi lu man diine rek a fi ne sàmmoonte ak koor yi sellal koor gi sax ci ma mëdal miskiini yàlla yi ak sàqat yi lii lii fi ne ak natt asaka ak aj baytullahi al araam ci boo amee manam ak loo man ci xaj bay di nag dafa am ay sart am lu ca war saa boo mënul loola sag aj yiw ya war di ca ne jiital ca yéene ju ànd ak fas fasub def yiw alal ja ngay aje day lew doom mooy mën a ne sa fay sa bor ba miraas sa bopp mel ni ku gëm ci koo ci yi ci laab loolu mooy mën a ne kem julli it na nga jiital yéene xam la ca war ci kem nañuy laabe ak xam jëf yi mooy mën a ne asaka it na nga xam sartam ya xam la ca war ak ñañ ko yellale lii mooy tax sa jëf ja dina ten moytu ak rëy te moytoo tan moytu ak rëy te bul xeebaate bul naw itam sa jëf ci ba boo yàlla boo koy naw nga réel yi du nekk tan moytu ak rëy te bul xeebaate bul naw itam sa jëf si buur yàlla boo koy naw nga réel yi du ne sa sa tan yu moyo say say say moytu def pexe yu cëppul te moytu di wax say moytu ab jay ba tax ngay def safaat yu fan yi say moytu def pexe yu cëppul te moytu di wor te moytu ab jay ba tax ngay def safaat yu fa ne wala xuróorin bila makrin wala istijraa jin dañu ko teese yooyu seen yiw di fa ne tan mooy ak nay ta muy tawut alal bi lu mel ni am ramu yooyu seen yiw du fa ne tanuy mooyoo jëw sama mooy too fen di def wax lu nu xam ku sax ci def lii des ay yiw foo ko sax ku mu ne te mbigi adduna yii tax ay jamaj dinu dal day pexe seytaane mbig mañ saamu bis bala ne bisub keroog ku fa am mbég faw ngay dëkk mbég ku juum bañ ak sa mbég nañ say bugal dana bon yàlla soppanu nun nit wàcce téere bi gën ci nun ngir mucc nan jëf li mu sant ko ne yebal fi yeneen yi ak boom yi teg ci ñeneen muy xaw si yeeg leen bi yaayi ñëpp wax ñu ne leneen bindal ñu téere yu doy ay file def lu nu jëpp waxaat na lu ñu xam ñu koy leeral ci wax yu fi ne ak yenn wàll yu yii ñëw ñëpp daanu digal rawante naa ci fi def lañ gis te wóor ku fi ne teg nañ ko ay na nattu teg koy coono lépp nu lépp muñ di sax ci gëm yàlla ak yenn bi teg nañ ko ay nattu teg koy coono lépp mu ñu du sax ci gëm yàlla ak yeneen bi rek a fi ne min kulli man jumlatin laxiyaari martabatin laakina ma ahmad al muxtaar muxtaari nan sax ci gëm yàlla gëm yeneen bi gëm ñi ko gëm mooy bu démb mooy tey foofa mooy xale na seet leen ñi yàlla gëm yeneen bi may yi ñu am ba mu topp seen sët yi lii sax jànn gëm li fi ne boo ko mënee ngay sax wa am njàpp sax ci si kar seen jullit Moustapha yeneen bi gëm ku fi ne bul jënde lenn merom bur yàlla ngir sa bakkan bànneex jëlul gàcce bis boobu fa ñëpp di ne mbooleem ñi teg jinne ak malaaka ñëpp taxaw ñu fay ku nekk sa jëf ko benn bu rafet ñu atte ku ne ca lan ba def ko imaam yàlla nay cofeel gu rafet mbaa jëf yu baax si feneen yàlla nañ ñu atte ci yonent bi ñu baax ñu mu am ñu am sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ ñu atte ci yonent bi yu baax ñu mu am gëm nañu Cheikh Bamba min xam jëwi na jëfi na bisub keroog ku fa jaayoon tey jaral la ëllëg abri ci ñel na la foofee say ngëneel di gisaa nga foofee ku topp nit sikkante ba ñëw ku nekk naa yawa foofee benn buur a fa ne gisaa nga koy topp nit te yuuxu naa ko ñëwal yaa ma diggoon tey te doo tuus fay ma rekk a fi ne xarit du faj dara bàyyi doom ku nekk la nga tal nafsi ka nafsi keroog bur yàlla rekk a fa ne gisaa nga ndey fayu meen foofee ca doom ca doom jamu jur kem pepp suuf dañ ko fay fay ay balaa sa kanam te yàlla buur bi amul kumpa ci loo mën a jëf say carnet leer na ko liy gën liy gën jëf lu sell fa ne te yàlla buur bi amul kumpa ci loo mën a jël say carnet leer na ko liy gën jëf lu sell fa ne ak cam suñuy wax sëriñ tay baa xalaat sartasin bis ba ñu nuy dig ñu jéem koo faggu lépp fa ne ku jëyi adduna tax ngay jàng jëf lu la soob gëmal ni ñeel na ay delloo ca bis ba dina keroog nga gis njëkk sax bi jën di tontu jëfam ca lañ ko daan daane yàlla na jëf yu baax yi fa ne tegtal yi wax na ko mboolem téere yëpp ko wax Cheikh Bamba leeral ko kon nam jëmmi mooy la fa ne demal tasawul yi seetaat Bamba nu fa wax ci nun ñu koy déglu leeral nanu kem la fa ne tuubtoo ilallahi noo ngi tuub ci lun masa way arab bu cay njuum te dëgmal góoru yàlla gi moom mi di xafaaru yoon njéggal yàlla na ko def ci nun taxee na ci doole ni ngóoru yàlla gi ne salli wa sallim wa barik allah sayidina wa ala ali ak saxabaam yu baax la fa sunu boroom kemtulaayu sunu xalaat ngeen baal na lu ci jumtu bii téere yi noo ko teg ci yi lanu xalaat te gëstoo ko ci boroom xam-xam yu rafet muy taxawaay bis ci ñu niral ci rek tuuti ci ñu ci gëstu dana wax mu sàkk koo xam ne jëf yu rafet tey mooy te yiñ cere ndax duniyaa dafay mujj a tas may leenu nopp yi sañ tay baa ngi fentati woy ci digle ak tere tey ñaan yàlla yàlla na ko gis may leenu nopp yi sëñ tay baa ngi cant ci woy ci digle ak tere tey ñaan yàlla yàlla na ko gis bii téere day xam ne tuut gis pénc ak la ca ak nax yi adduna nax wéy wéer yi muy lu nu gis ku wàcc fas yi di lislaam woo waraat dana mbas jullit bu cof diine islaam faw faw mu jullit dafay fonk lislaamam te fonki waxam koo xam ne loo wax mu juyóg dëgg kenn du la gis boor yàlla bind jinneeg nit lépp jaamu koo tax nga ñàkk koo jaamu boo jàndoog samat li nga wut wàcce la màggal la jox la dund sàmm sa cër tofal la wërsëg nga bañ koo jaamu doo jarul rawante naag ñi bi lislaam jox teraanga yu doy ñuy roy ñuy moyoo wax lenn luy taxarus boor yàlla sotti la say xiiwal sa lépp di dox dal la ni sàmmal ma boo rulee ëllëg da rus saa waa ji bul jàpp duniyaa saa waa ji bul topp dunyaa noonu la day mujje wax bul jaay sa diine ji ngir moom kon ëllëg di nga rus woykat wa moo ni ku jaay tey jii jaral la ëllëg ak réccu ñeel na la boo wéetee ëllëg da nga am na ci ay yow ma yu nuy wax te day xale ñëw loo am keroog te du angam yàlla deesu la rus keroog la ñuy keroog lañuy ñuy dindi kiiraay yépp yooyu di bax jant bi tàppe ci kaw ni ñëpp bu rafet keroog la buur yàlla dekkal ruu yépp janoo taxaw ca ci ma ñuy weerantu kenn fas yonent bi nee na bu ñuy dekkal ba ruyee daje jibi la koy yee di ñaan jéggal ca moom ma ñu rus ba Moustapha génn mbooleem ruu yépp gëlëm tàngoor ya tar lool ku ne laaj moo ku ne xale rus salaa alayhi sangu madina yàlla na taxaw ndax yàlla jéggal ci baa xam ne moom dafa rus ñu dem fa aadama jooy suñu bopp ngir ku nu tiim te fekk moom mu nekk ciw tiis bay dagaañ ko kurus man mii nga xam ni damaa lekkoon lu yàlla tere ba tax ñu génne ma maa def tiis yi bu rëbbi sës ñu dem fa nooyin ma dem tufaan ma noon yàlla bon ñaan yàlla attenu ndax moom tey mu doon ku ñuus mun naa bindee bi dama tiit tey kinaana ma lab may ñaan ñu ma baa tiit may dagaan ku ma rus ñu seeti sun maam xalilullahi naa ko waxal ndax yàlla attenu yow soppeem bi des na la rus lu rahman janoon mbooloo ma dal di sa ngéem ngir kersa ndax lam diggaaleeg yàlla ñaan ko ko rus wax leen ni bis baa tojee xërëm ya noon ya taxaw ma wax lu dul dëgg laa tiit bay dagaan ku ma rus ñu seeti Moussa kalaamullahi naa ko waxal boot yàlla attanu ndax yow tey nga doon ku ñu rus mu daa xamal leen ni dem leen seeti waaju ma man tiit naa lu rëy saa digg ak boot yàlla mi aji rus man mii labal kañu naa fir xaw na moo ki ñoñam alak lu xaaroona tey maa ngi dagaan ku ma wis ñu seeti isa ne yow mi ruu ullah ay waxal bul yàlla tinnu ci say leer ndax nga doon ku ñu rus isaa ni leen sans digg ak bul yàlla doy na ma man dem dem ca Muhammadu tey mooy mbër mi yàlla jur salaa yi nabiil Moustapha mi nu am moom rek moo des ci yaakaar moom la yàlla jur tàngoor ya tar nañu fuñ naa jaanamaa fatane moom la ñu séddee sa ñoñ tey ndax da ngay ku ñu rus ñëwet di woon ndigal jëm ay tooñ ci xeet bi nga ñëw ñooy tabbi jaanama ngir yow lool rekk bi sus jibril wax ko yeneen safaan ya tar ga mu tar yeneen ba jooy fekke roog mbooloo ma dal di ni tiis tàngoor ya tar lool ku ney laaj laaxan malaaka sa jëf tàngoor ya tar lool ku ney laaxan ma malaaka sa jëf kii wax ni suñ bopp lan tal kenn fi ajiru ñu dem fa yeneen ba saydul mursaliin a ka gën wa sallallahu alayhi moom la yàlla di jibrilu dal ko ni yow tey Mustafa taxawal sa yi sonn na te yii yow la yàlla di rus yeneen ba jóg dal di kàbbar ngir xolam bu rafet ñu gàmtu dal ko ni tey nag atte rek bi sës ñu dindi kiiraay yi ñu ñu wàcc euh, ñu wàcce jant bi kiiraay yépp dal ni melef kenn du fa muuroo lu may gëm yàlla mbaa di nga ruus ñu wàcce jant bi kiiraay yépp dal ni kenn du fa muuroo lu dul gëm yàlla mbaa di ruus góor ñaar jigéen ña di jonjoon ku nekk ku nekk génn ak sa awray neen te duñ gisi seen góor ñaar jigéen ñi jonjoo kenn du tal ku mu ku nekk génn ak sa awray neen te duñ gisi seen góor ñaar jigéen ñi di jonjoo kenn du tal ku mu tariixa yee ngir yi ak yooyu ku ne di wax naa maa texe boor wan leen melaw këmurus ku bàyyi saay tere jëf saay digle ñeel na la tey nga tàbbi aljana nan góorgóorlu bay kumurus ku bàyyi lem digle sax ci tooñ ba dem fa keroog ak loo dëgërloo ba tooñ bur yàlla deesu la bésub keroog nit du am sañ-sañ ku waa di tuddoo te jëfi woo ndigalam doo doon ku ñuy xalarus keroog ña daa tooñ ba suuf jooy leen samaan yi di jooy malaaka yay seere seen jëf seeni wit dina lës bis booba mooy doon bisub tar bopp lu waay jëfe woon xalset nga caa tabbi yàlla nañ jëf keroog lu ñu mu boole dënd bi suuf seeg ndox ñi boole toxoñ lu mu bind teew mu janoog moom yàlla nañ ñu fulus tur yi ñu may wooyee mboolem tur yi wenn na fi am taqi ma fay jëf yi yàlla nañ jëf keroog lu julus tey laay wax ak jaam yi delloo kenn ku ne sa jëf kenn du fa tal kenn ko daw jom mu naa la mbërës boo yàlla santaane téere yi jëf yi wàcc keroog ñuy nangu kenn ku nekk say jëf nga soj nga jot ca mu fis kuñ joxe say jëf ci sam ndeyjoor joor sa tuuma yolom ñu wàññi say coono buur bi yàlla dal di la buur yàlla dal lay xamal say mooy xamal la sa yiw xattee la yërmaane ngay doon jàmm bu yàlla di rus ñañ dooni seen dënn ba mu sar seen ginnaaw ñu ni leen càmmooñ ñu nangoo ci càmmooñ ñooñu ñooy gën a rus yonent bi junju na bis baak ak la ca xew ñay seet ña daa jëfee tooñ kuñ seet keroog di nga rus bi laañ na keroog jibrilu alayhi salaam mbir yi nu muy demee mbaa saa xet wi des na ko jibrilu tontu ko yaa nabi yu tàng na tey nun ñuy malayka noo ngi leen kenn du tàngoor yëpp tar lool tàngoor yëpp tar nañu fuñ naa jaanamaa fatane moom la ñu séddi sa ñooñ tey ndax da ngay ku ñuul ñëwet di woon ndigal jëf ay tooñ ci xeet bi nga ñëw ñooy tabbi jaanama ngir yow loolu rek a fi sawal jibril wax ko yeneen safaan ya tar nga mu tar yeneen ba jooy fakkee mbooloo ma dal di tiis jibril it jooy ba ñoom ñaar ñëpp bokk nga sa bokk sa ngir nit ñëpp jaaxle tanaa tey yàlla rek a fi sës jibrilu naa Moustapha looy jooy sa cër bi nga yor buur yàlla yónni la tey yow yow la yàlla di Muhammadu Moustapha sallallahu tontu ko nag bu yàlla deesu ko naagul coobareem na lurus jibrilu naan nabi yow sax yaa mu amal naa réegi àjjana sañ santal ñii lu gëm duñu lus tey lañu nuy atte tey jii ku ne ñibbi sa kër ña weddi ak ña dëggal seen atte léegi mu fis ku weddi wan yàlla tey jii jaanamaa di sa kër ku gëm borom bi te gëm yeneen yi des na lurus kawaral pénc ma tax ñuy peese cër ya di lay mooy ko dëngul jubul kooke lay dagaan ku te foofa làmmiñ du layil kenn ku ne sa cër mooy wax keroog la mu jëf yàlla yi ngëneel ñu ngi fi yi nag nee ñu lu mu réy nga sax ci di tuub bu dee sa digg ak borom bi yàlla mën na ruus waaye bu dee sa digg ak ab jaam yow te demoo fa moom ba baalu ko ba mu jéggal la kenn du la ruus nan jéem a nan dolliwaat tuub yi nan dolliwaat tuub yi seggaab xel yi sax ci ndigal yi bàyyi ko ci sunna yonent bi kon du nu ruus tey topp ñuy aw ci ngir yu yoon yu yàlla gërëm tey moytu ñuy jayu tey bokkaale ñooñu lu tus ñooy jox ku néew doole ñooy jox ñi néew doole tey way xam ya ñor ko am te sopp koy joxe bañ koy laaj te mooy daw ko du tus booy laaj fi ñoom diine dañ lay jànni naa la gëmoo booy laaj alal ñu ni diw day taalibeem ba du tus seen bëkk néeg dañuy déggoo ku nekk di wax ubbil ma diw bu ñëwee diw nanga tu bëgg du koy joxe tus seen dëkk néeg yëpp dañuy déggoo ñëpp di wax ubbil ma diw bu ñëwee diw nag du koy joxe tus ñee di tëggoo maa di diw di doomi diw te du diw dem bu yàgg mu def sàkkal ja kooka du tus te koo fa toog ci jotaayam tudd waa ju ñu naw ci wàllu yàlla mu dal lay mere naa la du tus kuñ foog as lëf ñu dal lay fonk teg la ca kaw yaata la daj la woon seen lépp dara du des di sàkk di sàkk xejjaki seen nag fu ñu mën di dale daje te duñ ca taamu ku fees ak yàlla mbaa ku ñuul di sakku xeej ak seen nang fu man di daje te duñ ca taamu ku fees ak yàlla mbaa ku ñee di la woon kër yu ànd ak saal yu rëy yu rafet te kër ya ñuy taamu dem lee waaji amu fa tuut amoon na kuñ naa sëriñ njaay fetto daana biral lu mel ni lii nu fi woy te mu nekk gis gi ñu gis te lu mu la wax dala koy wan fii ko téere yi wax ci alxuraan ba addisum na bi muy lu ñu gis te tey moytu dañ nekk amaana am na waaju fi ne di laaj ñi seen wax dëppoog ay téere ñu ngi fi ne xas am ñu fi jiw di wootey waare mel ni ki man seetal la ñuy wax bu juyoog téere wax jëlu tus ku lay jafeel jëmam tey tuutal lu yàlla gërëm ku lay jafeel jëmam tey tuutal lu yàlla rëyal tey ñàng-ñànglu moytul kooku kooku du tus booy lu way jub yëpp ñooy way néew lay aji xam tey gor su dul jeng seen bët yépp yàlla la des gis tey moytu ñuy tiitaroo ab jay di xeeb ku ñu may naa maa ji diw doomi diw rakkal la kooka du tus te ñuy ñemeeg dogu ci bokkaale loo mën a wax ñu naa la am na fi man te fekk moomu fa tus di digga aljana tey naatal te naa la jëfal ndigal yi may digle say biir yi say biir yiw te fekk du tus ñeema la doon wax te ñuy yonneen ya fuñ mënewul bay tiit ci seen bopp foofee kenn kenn du fa tus ñoo ñii la téere ya ñoo ñii téere ba doon tegtal masaali ga wax du waxe sëñ tay ba nan seet bi di sédd ci bis bànneexe àdduna yéeg wërsëg yi kum gërëmal ba tax nga réer ba nga réeree nit ñi yaay mu jurus nan dolliwaat tuub yi seetaat xel yi dun bi saxul royaat ca maj soom ya ak woygam ya mooy li fi san moytu waaw ah,